parce que je euh, dama sentir am fier d'être un médinois je fier d'être un séeréer je fier d'être le troisième tigre de face. tay loolu la sentir euh, ku ñëw tay fii di nga di nga am parce que nit nit kese la combat bi moo am fu mu toll ci am fu mu tollu ci gox yi nekk en l'entour de l'écurie Fass mooy Médina Fass Gueule Tapée Colobane maanaam Dakar ñoo saafeen si séeréer seeg xam nga ñëpp ñoo xam ne daal euh, dañu am habitude di gunge Gris Bordeaux ci ay bésam tey ñëpp dañ nekk derrière Gris Bordeaux commençant par euh, fukki pénc ak ñaar nekk ci Ndakaaru séeréer si ba zone yi nga xam ne dama suis dem bi depuis que ma nekk je ba fi may wax ni lamb ji impliqué wu ay zone yo xamné ba ma fa dem sama commencement wu carrière Je fa dem amana sax ni fa xamone sax ci walu ñaan sax amna ñu ci aduna sax impliqué wu ci combat ci ci combat bi. ni la wala pression la wala motivation la pour motivation la parce que combat bi dimension dimension la supporters. sport de combat moo am ay moo am ay haut ay ay bas parfois nga nekk ci benn niveau parfois nga def nii di incliné loolu ak sport moo yem mais combat bi wax dëgg yàlla dama ci am yëg-yëg trop te samay supporters xam ni ah Gris bañ doon gis ci wàllu wàccaay lañu gis samay jegeñaa la xam ko su ma gos yi nga xam ne c'est des lutteurs jege ma pendant trois mois ma nekk ko ak ñoom en regroupement xam ni. combat bi amna na fu mu toll. nek lo xamne wax deug yalla sama man ak sama ay supporters dañu mës am affection parce que dama nan man Gris Bordeaux amuma ay supporters j'ai des frères tay mbolo mi ngi teewoon tay 90% yi ku ma ne ci jàkk xamna fa nga dëkk xamna fa nga cosaan parce que ñooñu c'est pas des supporters c'est des frères de sang ma juddandoo ñom yarandok mom ñom magandok ñom defandok ñom lepp ce n'est pas des supporters c'est des frères loolu sont Sénégal Je suis fier de loolu te ñooñu nous, depuis ma carrière je suis en train mbir am mais dans le peuple diine bu nekk ci dëkk bi rek message supporters lancé est-ce que percevoir nos clairement waaw Malick bés moom du rëy ci man waaw bés moom du rëy parce que laaj làmb ji dafa yàgg te préparation bi dafay am un an te mosuma préparer combat bu am dima euh, distance bu toll nii moo tax dama ci waaj waaj bu ma war a waaj ànd kook suma ay grand frère ànd kook suma ay rakku mbër boo gisee fi général mi ngi nii toog ay ñoom euh, ñoom Lagro ñoom euh, moodo ñoom Papa Sow ak ñoom ñëpp ñoom Serigne Ndiaye. Baara Ndiaye booy Boga Forza xam ñoom ñëpp pendant trois mois Papa Sow ak ñoom ñëpp pendant trois mois di sant sama entraîneur Mohamed Ali Ndiaye war na ñibbi bu yàgg combat bi moo ko fi téye. à 72 heures de l' événement. Gris lan la yëg ci yaramam. li ma tàmm di yëg rek bëre bëre daan ñibbi pare loolu la laa sentir wax dëgg yàlla tey li ma bëggoon sax li ma bëggoon supporter gis ko ci man sax ça m'a tellement choqué.

yaa ngi jéem a nax sa morom ci tactique mais yàlla xam ne de man sumay arme dama koy denc incha allah ba jour bi rek incha allah. Gris Bordeaux bi gars yi soxla dëgg-dëgg mooy Gris Bordeaux bu concentré mooy Gris Bordeaux bu am vivacité. Gris Bordeaux bu am rapidité Gris Bordeaux bu mën a dóor xool fu muy dóor aj gardam ak yëpp maanaam bu ñëwee dóor écart bi gaa yëpp kontaan dafa mel supporters yi loolu lañ namm ci yow ndax mun nga leen promettre ni Gris boobu moom la ñu gis le 31 face à Balla Gaye 2 incha allah wa wa rabbul izzati yàlla moom moo amee lépp pare naa bëgg dem incha allahu rabbi ci kàttanu yàlla yàlla bu diggante bi am ndog ndog dara bañ ci am ma koy ñaanal sama bopp di ko ñaanal suma adversaire di ko ñaanal borom bés bi ñu ko njugalaay ñu diggante bi yàlla na ci yàlla def jàmm di ko ñaanal ñëpp di ko ñaanal samay supporter di ko ñaanal samay supporteru adversaire bi ba la bis ba bis bi incha allah. ah euh, yi dañuy wax ne bu dee xeex Gris avantage bu dee bëre avantage Balla ndax yow analise boobu nga am ci combat. waaw loolu analise yu gars yi la rek mais yàlla xam ne man man pare naa ci côté yëpp parce que man je me suis dit que ni coono yi ma daj ci combat bi. focaliser wu ma ci benn boor dama focaliser bëri na bëre ak dóor peut-être gars yi ñoo yaakaar ni euh, loxo yi day dem yooyu yooyu ba nga ba ba ñu bëgg a focaliser ni giri xeex rek la mën mais man presque ñi ma daan yëpp ci bëre laa daane mais incha allah su may ñëw samedi incha allah lépp laa indi du ma bàyyi dara du ma bàyyi dara. taf taf taf taf taf taf. non yooyu dégg déggal mu la dama ne la. incha allah samedi lépp laa indi kuy dem ci guerre nag. da ngay pare arme yëpp incha allah lu mu laal rek ma appliqué ko. Fass nekk écurie bu nga xam ne cosaan la écurie bu historique écurie bu euh, bu nga xam ne ñëpp dafa am fu ñu ko teg tey mu dem ba Fass nekk ci dynamique bu nga xam ne ñëpp dañ ni Fass tur bee fi des mais mythe bi effondré wu tey nga war a jëm ci bés bu nga xam ne da nga war a delloosiwaat Fass fa mu nekkoon démb ak bërki démb loolu également sas la pour Gris Bordeaux est-ce que sacerdoce boobu yaa ngi koy wóyaale.

tey kenn waxu la tuuma la du teew ñuy nataal. ok dañ maa sauvé sax dugal ma sa oto pour ma rëcc ndax yenn booy nee nañu man damaa faral beneen côté bi. noonu booy dañu excité wu rek xam nga tey booy booy tey. booy tey tontu nga ndax koo dugal ci sa oto kooku xam nga du ko ñuy moytu. waaw loolu la xam nga Fass bu yàgg la. te kër goo dugg ci Sénégal rek am na supporteru écurie Fass bu nekkul maire ba nekk paa bu nekkul paa ba nekk sët yi parce que loolu loolu nag wax dëgg yàlla

mais ko c'est pas quelque chose d'extraordinaire parce que daan nous nous peut-être xam ko mais rabbi. sa copain il paraît que ngi nous ñu lay jox parce que mon daan na ñaar ah, parce que le combat j'habite en bas et pendant trois mois mais c'est un ami moy ñaanal ci lu mu dugg rek may ko ci parce que am ci la am ci man mais mais ndolo nous diggante dafa mës am estimation mais dama ko estimer ndax comportement c'est un gentleman correct manit momit, moom it loolu noonu la estimer ci man ba yàlla def ñu ñu am habitation tête à tête ça veut dire que bu taxawee këram ma taxaw sama kër kër nañ di wax ça veut dire que loo kooku léegi dépassé na sa cadre là ah non bon mënuñu wax ci combat bi parce que tamit bon face parce que man je me suis dit que ni lépp lu du di uti ca àll ba yalla daf ma suturaal mam ko quand tu parles d'un lutteur expérimenté mënoo bàyyi Moustapha Guèye c'est un technicien xam tay nga wax mbey Guèye manam tay lepp lu mbeur di ñak rek yalla dimbali na ma ba nga xam tay duma ko jékkaali fenn duma ko yóotu fenn Moustapha Guèye nek sama wet gueye Camara nek sama wet Abdou gueye nek sama wet mohamed Ali Ndiaye champion du monde nek sama wet ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam am na Ibra Mbaye nekk sama wet ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne mu li ñu xam ci làmb dama ne du mën a ñëpp xamu xam ñëpp ko xam de waaye soxlawuma jéggaani fenn mais nit dina ma yéene ci xam-xamam ci leneen ak leneen ba ba pare li ci gën a doy waar tey ñoo ngi ci open press bi yay am ci yeneen équipe open press bi du mës am face xam nga amul daw làqu amul dara nous sommes seuls contre tous fii équipe face képp côté dong nga fi gis open press yi day mel ni. day mel ni sabar bu tas mais open press bi ya a que des lutteurs face dignes d'être face waa amul lenn y a rien d'autre te ci dynamique bobu lay dox mom lool la ñëw fekk suma mag ci dox te lool lay doxal ba keneen di ñëw di doxal lool on est seul contre tous te inshallah ci dynamique bobu la ñu nekk. 31 on verra le vrai tigre. inshallah allahu rabbi ñu ngi woo ñëpp incha allah ci kàttanu yàlla samedi. Euh, samedi incha allah danaa ñëw ak ay bagages yu bees tax di woon ak ñëpp su ma nee damay woon ñëpp parce que bés bi euh, bésu ndakaaru la géejawaay ci biir dakaar la ne te écurie di Fass mooy Dakar kon ça veut dire que ci biir écurie ci biir ci biir ndakaaru la ne tey ñun ñooy Fass nag mooy écurie ndakaaru ça veut incha allah ndakaaru yu jóg dem stade ndakaaru ndakaaru muy jóg. dem stade incha allah ñëw gérer combat bi gars yi yëngal ci kaw man ma yëngal ci suuf. bu ñu tëjee barrière yi arbitre bi génn seen incha allah loolu sa habitude la xam nga ko diwoo woo ñëpp di woo moo nekk nii moo nekk nii incha allah.